li nga xam ne moo dal ci kaw Wally Ballago Seck tey mu ñu koy saaga toujours ci internet bi toujours sa fait des mois ñu koy saaga tey en tant que euh, Karamba di am loo bokk ci Wally Ballago Seck Faramaren yokk si Faramaren bi Karamba Karamba Faramaren bi Karamba Karamba Wally Seck la mhm. man Karamba Karamba mhm. Faramaren la mhm. keroog fii laa toogoo def naa ko vidéo maak Sarata dëgg leen doon wax nag jinne yi ñoo leen commencé téegal benn par benn. ñoom sii mi la man du ma tudd turu kenn su ma neexee ma tudd tur saaga seen ndey ñoom ñëpp man aw ma lu may tiit aw ma lu may ragal. soo jógee dem biir commissariat man duma ma dem commissariat fii laay toog di la téegal te du ma dóor luy may duma ma dóor luy échec. ñii gisaguñ dara. xam moo tax gisaguñ dara. Mm-hmm. kuy dóor moo man kuy saaga. Mm-hmm. Wally da leen a raw gis nga ñooñu ngay wax. Mm-hmm. ñaar ñu ngay wax ku si am oto. amuñ saret ku xalifa rappeur kooku bañ dugub la saaku day la xalifa mm-hmm. rappeur bi ngay wax mm-hmm. yow xalifa rappeur mm-hmm. yow xalifa man karamba maa ko wax saaku day nga paaj biir buy daw Wally sekk du seen moroom da leen a raw te li may wax ni képp ku ci mar fekk si ma mbuur boo ko defee boo fi indee caaya ñoor kese nga yóbbu ak koo manti doon faalewu ma la Wally Seck du seen moroom wax naa leen ko te dinaa leen ko waxaat nee naa leen ku sa baay manoon baayam doom ja yaa ko man Wally Seck sa baay moo mënoon seeni baay kon yaa leen man bu leen topp ñooy baja baja lañ yow yow yow fu mu toll nii senegal dama yaakaar dañoo bëgg àdduna bi yëngatu barki sëriñ Fallou te barki Serigne Fallou buñ bàyyi Wally Seck xam nga fu mu toll nii yaa ngi commencé ku nekk def ay vidéo di saaga ñii di kii te ñëpp Wally la ñuy xeexal kon nañ bàyyi waali mhm. te ñuy xeex ñii saa gis ni mu bare. Mhm. ñaari nit kese ñooy def seen i fem ay nit ñu leen di fay xaalis man man du maa ngi ñiy fay ñiy de barki sëriñ fàllu Mbàkke laa la gëñal du ndax tudd naa sëñ fàllu mhm. ñoom ñooñ fay ñoom ñi nga xamante ni tey ñoom ñooy neexal gars yi xaalis pour ñuy attaquer Wally Seck di ko wax yu bon wala benn affaire wax naa leen ko waali bu leen topp ñoo ñu di la wax noonu xaaj bi yëpp seeni yaay bi ñu sëy seen kër biir lañ fa sëy si dañ leen a pëtëxal te waa koñ bi ñu ngi leen di suturaal tey looloo tax ndey noonu lañ mën a mel parce que olof moo ko wax wala olof li wax doonatul dëgg doomu jaan lu muy doon jaan ah? doomu gaynde doomu xar doomu duulkat duulkat lay doon kon jeex na ñooñu ñoom noonu la ñuy doxee parce que seeni seeni seeni waajur ñoom loolu lañu nàmp waali du seen morom waali dalee na raw waali sekk dalee na raw barki sëriñ fàllu waali dalee na raw waali sekk du seen moroom waali sekk du seen morom waxuma sax waali sekk xanaa waali deux sax duñ duñ bajo bajo bojo yele mm-hmm. waxuma la ak waali waali moo leen raw Sénégal bëgg nañ ko mm-hmm. am na teraangaam ñoom lan lañ am. ñoom lan lañ am amaguñ dara yow yow yow. yow amoo sax amoo sax yow loo am ñoo amuñ dara ba pare bëgg a sonal ñun internet bi lu ñor dañoo yor dara yow da ngay bàyyi ba am xaalis nga soo ko def li ngay def ñooñ duñ dara duñu duul lañ leen di fay. lañ leen di fay ba tax ñuy wax si Wally Seck lu bon suñ ñëwoon si man ma may leen ko ñu dem te duñu wax Wally dara. lii xaalis la mu ngi nii. dëgg la wala namuma dara. Mhm. xoola la ñuy wax yëpp bu ñëwoon ma may leen ko ñu bàyyi Waly sekk mu dem yoonam la mooy xaalis lii lañ leen di fay lii lañ leen di fay xaalis ñuy teg si deru Waly sekk bi lu ñaaw xaalis jaru ko dañuy dee bàyyi ko fi ñoom ñooñu kenn xamalu si Waly dara ay fenkat lañ ñi ay duulkat lañ ñi ay punkal ñoo nekk seen ginnaaw di leen ruux pour suufeel Waly Waly yàlla moo ko taal ku yàlla taal nag kenn mënu kaa fay su dee xaalis ñëw leen ñu may leen xaalis ñun faramaareen namuñu dara. faramaareen barki Serigne Fallou boo bëggee ma dugg génn waat lu ëpp lii. dëgg la preuve. ñun namuñu xaalis. Mhm. suñ bëggee xaalis na ñëw ñu may leen xaalis. te duñu wax lu bon. déggoo ma de. Mhm. suñ bëggee xaalis ñëw ñu may leen xaalis ñun namuñu xaalis. Mhm. yoruñu faux billet. luñ ñàkk nii def ko nii lañ yor. yoruñu faux billet barki sëriñ Fallou Mbacke bi ñu yaakaar. mais kon gars yi dañ leen jël di leen fay xaalis ñuy wax si Wally Seck lu bon. xam nga di wax si Wally Seck nii. nga ne sa biir ñu ne damaa yor faux billet. ñii ne dangay yor damaa yor machine xaalis sama biir poos. ah man de loolu loolu de lool de jarul sax tontu machine si biir poos moom jarul tontu parce que lu ne di nga ko dégg man su dee man Karamba taalibe Serigne Fallou bi man Karamba man Karamba la messi dee jinne jinne yëpp ma doon seen baay barki laa ilaaha illallah ak yàlla bu ma fanaan guddi tey. su dee mus naa taxaw si programme jël faux billet may ko nit yàlla bu ma fanaan su dee mus naa taxaw si programme luxus xaalis may ko nit yàlla na ma yàlla rey guddi googu man lépp lu may lu may maye maa ko liggéey xaalis si xool la neex xaalis am ko neex na de mais joxe ko mu yombul su waane su ma neexee maye bi ma nee bëreet ñaata laa dagg ticket ñaata ticket laa dagg bi mu bala maa dugg cent mille francs laa dagg ticket soo ko dugg soirée waali bi cent mille francs kon su ma neexee lu ma neex ma may ko waali maa ko liggéey mu lew ma ah, te waali mayaguma ko dara 2022 bii ngay gis Karamba ak Wally Seck 2022 bii uh-huh. waa waaram daan yëpp nañ préparé 2022 bii ngay gis Wally sekk Karamba kenn du ko lijjanti kenn du ko lijjanti waxaat ko ma dégg nga ne 2022 ak Wally Seck kenn du ko lij ak waaram daan kenn du ko lijjanti am nañ fit bi mën nañoo way am nañ matériel bi am nañ xaalis bi te maa ko wax fii Wally Seck fu ma ko fay fekk fu ma ko fekk lu mu dee dee dee dee Wally Seck mooy wax ak yow programme bu ma ko fekk lu mu dee dee dee bu ma ko mayul ba mayu ko naa ko may un million ak fu mu manti way su ko neexee yow Wally Seck def su la neexee Wally Seck demal ba Stade Tefes nga toog nii jël sa bant nii di font bu ma la fekkee may la un million ah, barki Allaaji Fàllu bi ma yaakaar te barki Seydina Mouhamed su ma la mayee foo biyee wala ma may la xaalis boo xam ne dama kaa luxus guddi googu yàlla na yàlla yóbbu sama bakken bi lépp lu ma la jox maa ko liggéey mu lew ma dong barki Serigne Fallou Mbacke bi ma yaakaar ñii dañuy wax rek ñoom ñoo ñu bajo bajo yooyu ku sañoon ma ñëw soirée may la xaalis. ñoom fu mu toll nii ku sañoon damay karambaa di ñëw soirée may la xaalis lijjantiwu ma leen booy way demal nga way sa yaay wala nga way sa maam <laughs> dégg nga. bëggoon dugal benn bi. man dafa mel ne man ñaari jantal maar laa gis te jantal maara ci mbuur benn la. Mhm. am ku njëkk a dugg sol sabadoor xaw ma kan la nag. ñu woowee ko jantal maara mais bi jantal maara dugg see xam na ni kii mooy jantal maara ak lu waral naa ko jantal maara mu sal kii mais ba mu ñëwee kooku jantal maara bu oyof la bu ndox mu oyof la yor macha allah bi mu ñëwee kii bi mu ñëwee carrément kenn gisoo dafa suulu carrément kenn xam kenn xam ko ki lañ xam carrément. kenn xamul quoi. la gis naa la fa génne. 20 000 waaw di mel sagu kooku kooku est-ce que taaliba sëñ Fallou la du taaliba sëñ Fallou kooku kooku du taaliba sëñ Fallou kooku du murit mhm. du taaliba sëñ Fallou du murit woy boobu murit yi ñoo ko moom mhm. avant may yéeg Mbaye si Ndiaye lu mu wax ak Waly Seck ah, ñu ne woy bi karamba lañ koy may taaliba sëriñ Fallou bi yow bàyyi bañ woy la sa woyu sëriñ borom mbuur borom mbuur a ngi noonu karamba jantal maara la merci maara bi ñëw ba si waali seek waali waali maa ngi lay dégg bi la bi la maara bi dee naan la waxal kara kii nu mu seexee jantal maara Messi. bi mu la koy dee pour nga wax ko. xaaral image ñu wax xaaral xool image image yaa ngi noonu. kooku day mbubboo loolu waali Seck da mbubboo moomu ko man maa ko moom maay seen baay ñoom ñëpp ay dañuy duul rek naxaate rek lañ nekk fii duggal internet nga gëstu lu mu def mais diggante bi waali seek taxaw di way muy potoxlu waale moo tax bi mu ñëwee bi ma nee tël artiste bu arti artiste bu toll ni Wally Seck ak nouveau fu mu toll Sénégal yow kooku day yàq deru maaraay sax ngay potoxlu ñuy woy karamba ngay ñëw di potoxlu lu mu yor 15000 francs ñetti junni. ñetti junni la ñetti bee mille la yor. Wally Seck yaa ngi may dégg <laughs> may Wally 5000 bi joxaat Wally beneen 5000 mu dese ko benn 5000 bi ma jàkkaarloog mbéy si ba yëngal bi ma tourné daa zangi dafa 100 mètres. jërëjëf Fatou. vidéo yi yi ka monté xam nga ñu ko defal fit. man. nga may ko xaalis mm-hmm. loolu yaakaar naa ne rek ndam la. ndam la piyaata def coow. Mm-hmm. lépp di coow. mu nga may ko xaalis bu bëri mu woy la woy bu rëy rëy si biir bi nga xamante ni muy muur fi nga juddoo yorof loolu lan la la def sa li mu def sama biir xol. Mm-hmm. parce que yàgg naa wax si Waly Seck Waly dafa maa sagal. man bi ma naan Waly Seck dina ma woy kañ la. bi ma koy wax yàgg na bi ma naan Waly Seck dina ma woy Waly waali yàggu ma xam te dama ko yàgg xeexal parce que li may xeexal waali xeexuma ko pour intérêt xeexuma ko pour xaalis bu mu may may xeexuma pour mu woy ma waali fu ma ko fekk maa koy may duma may dama koy wax direct ñëpp ko dégg soxlawuma lu ma waali sekk may waali sekk fu ma ko fekk maa koy may du may am na lu ma may mais ñun ay élément am lañ fu ñu ko fekk dañ koy béggal na xolam sedd te defagul dara te fii laa leen ko waxee barki Seydina Mouhamed laa leen ko génnee si barki Serigne Fallou bi ma yaakaar deen xool deux mille vingt deux bi Karamba ak Wally Seck boo gis. am na retour déglul foofu laa jëm si allez boo gis. allez boo gis am na retour Wally Seck daf ma may allez biir mbuur. Uh-huh. Wally Seck allez la ma may biir mbuur. léegi retour bi fan la Wally Seck waa waa Dakar nañ préparé Vogue. Karamba dina xar foog ñett lu raw li ma def mbuur nouvelle génération lañ wax nouvelle révélation mm-hmm. nouvelle génération nouvelle révélation léegi état bi game bi Sénégal ay booyu ndaw ñoo ko téye ay booyu ndaw bu dee musique bi ay booyu ndaw ñoo ko téye su dee xam-xam bi ay booyu ndaw ñoo ko téye su dee kodo bi ay booyu ndaw ñoo ko téye ñu namul dara te booy yëpp boo ko dajalee bu dee dix personnes mm-hmm. neuf yëpp ay faramareen lañ. la. Dakar mu fekk la si siège bi nga juddoo yaroo fi sa papa nekk sa yaay nekk fi mu way la fi bu neex loo xamante ne tey jii kenn amu ko si àddina waali waali waali moo ma way lu ma kenn mosul way ma may ko lu ma mësul may kenn barke Serigne Fallou waali moo ma way lu ma kenn mësul way ma may ko lu ma mësul may kenn fii ñu fi toog kalaaf may kalaaf musa may 1 million 500 wala 1 million wala benn affaire. way la way boo xamante ne moom la ñëpp di te woy boobu bis ni ko tey Waly Seck yaa ngi may dégg man maa ko moom Mbaye si Ndiaye yaa ngi may dégg woy boobu maa moom sama sëriñ Fallou Bézame sama xarit sama xaritu xol bi yaa ngi may dégg woy boobu maa moom sa doomu ndey mooy woy boobu Waly Seck di woy sëñ Fallou Ballack Ballack Maaram nuñ koy waxee sax. seen maama demoon géej maa moom man Waly Seck man la ko woyal barki sëriñ Fall programme bu ma dem fekk Waly Seck woy ko am na un million laa koy may fi ma taxaw déggoo ma de bu yeboo mu doon téeméeri bu doonee téeméeri ñaata million la war a doon fu ma ko fekk yëkkati xaalis may ko bu ma may dara moom na am jàmm Waly Seck na am jàmm musique bi gën musique bi neex na day gën a neex parce que am na kele yu ñu war a génn yu bees bul mhm. parce que man man man du ma sëriñ gars yi ñoo ma def sëriñ def ma sama bopp sëriñ oh. artiste laa gën a jege que sëriñ mhm. man boo gisee dama dépassé niveau niveau sëriñ barke sëriñ Fallou Mbacke dama dépassé niveau sëriñ moo tax artiste laa gën a jege fu mu toll nii liggéey naa wàcc naa pare naa ci maa ngi ci leneen mais dama bëgg Sénégal ñëpp ñu ñaanal Wally mu am jàmm Wally sekk nañ ko ñaanal mu am jàmm ku ko yéenewul jàmm doo am jàmm bàyyi leen doomu jàmm di mu am jàmm gisagoo leen dara yéen ñooñu ci kaso bi boo leen dof dof la ay taabu taat laa leen sànni ay taab korte barki allah ji fàllu ay korte laa leen sànni te du eset du mooy déggoo ma de waale élément mi ñoo bari waale am na ñoo xam ne ñi ay om data ni lañ ñi am nañ fit te waale sans dara ay jinne boppam la yor musu nga xam musu xam loolu maa la ko wax tey waali sekk si boppam ay jinne boppam la yor soxla wu sa ay takk gàllaaj hmm? lu muy doy gàllaaj xanaa déggoo ñu ne la lépp lu yëngu lu ko yëngal ah kon li yëngatu nii waali moo ëpp doole waali moo ëpp doole te gaa yi dañuy potoxlu waali si waali pour ut buzz waali nii waali nii def seeni i fem waa du seen moroom mbojo mbojo yeeg jasit yeeg am na artistes yoo xam ne moom am na artistes yoo xam ne tekkiwuñ dara ñii ay jasit lañ ñii ñii ay golo lañ te neen ay artiste lañ am na artiste yoo xamante ni xoolal artiste ay neen ay artiste lañ de mais ku si simmi ku si simmi ab caleçon am xetu day moo lay bëgg a rey parce que du laabu maa tey ñoo xam ni ñoom ay artiste lañ di kalanteeg Waly Seck ay artiste ñu ngi kalanteeg Waly Waly Seck ñi doo seen morom yow parfum bu neex ngay xeeñ ay parfum trois cent mille six cent mille sept cent mille un million deux millions ngay xeeñ. dégguma la sax artistes yi di kalanteeg yow Wally ku si simmi sa caleçon xetu day lay xeeñ parce que bu puubee du laabu bu sawee du wisu sax xet googu mooy dem ba kii si kii ñooñ doo seen morom bu leen tëkkaale ak ñoom. ñooñ bës nañu ut si yow waaw. na ko naan su sa daal nga naan ko waaye sama sama benn mu bëgg a sol daal ma ne ko da ngay simmi sa daal yi. Mhm. daal yi nga sol safuma man Wally Seck mooy sama woykat ay daal 3 millions lay sol 2 millions. moom lay jël di ko sol te da koy sol suba mu maye ko tey la koy sol ku mel ni karambaa wala keneen taxaw ne ko ma doo ko ñaan sax day xool xam ne bëgg nga ko mu may la ko moom noonu lay doxe nañ bàyyi Wally Waly Seck moo leen man du seen morom te li ma leen wax gis nga xoola kañ la tëgg mbuur gis nga ni Waly def mbuur damay laaj gis ngeen Waly li mu wàccee mbuur te barki Serigne Fallou bu ko tegle woon semaine tey mu tëgg mbuur suba ginnaaw suba ginnaawaat suba tegle ko semaine chaque jour day te pour mu xam ne mooy kan su ko tëggoon entrée di mille suba na ko def vingt mille ginnaaw suba cinquante mille day fees. bojo bojo yooyu di tëkkaleeg waale na fi ñëw na fi nit ñëw tëgg fii soirée mille cinq cent. mille cinq cent doo gis kenn man mbuur laa dëkk ñoom ñëpp jaar nañ fi. Mhm. artistes yëpp jaar nañ fii mbuur ku si nekk public boo fi indi. fi la ma fekk parce que fi laa dëkk fi laa juddoo man dama doon sëriñ boo man du ma sax sëriñ parce que damay soirée ji. Mhm. damay takk ba mu nice damay soirée yaa ngi dégg ni gars yi di dox laay dox dugg si bowaat yi kam ñëpp di doxaan xale yu tooy maa tey xale yi tooy laay doxaan damay doxaan si xale yu maa tey te li may wax nag ngeen baal ma yéen ñi may seetaan si kii du ma ab doxaankat mais dama leen di won ni pour wàcce sama bopp quoi dama dama leen won pour wàcce sama bopp wan leen ni ñun duñu dara li gars yi def yëpp dañ koy def mais nit ku ñu gis dañ lay jox sa cër suñu àggee si xam-xam bi ñu won la xam-xam bi mais suñu wàccee ñoom moom suñu bopp est-ce que lii laa solo nu ma meloon sànq sànq nan laa meloon fàtte naa ko tey boo ni woon bërët pirip ñu dem foog man la acca damay taal oto bi léegi sol essence dana dem foog comprendre nga ñun duñu dara mais ñu ngi sant yàlla bu baax di gërëm Serigne Fallou di sant yàlla di gërëm Serigne Fallou